fees ci mooy yàlla ndëkk gàntal suñu borom a tax mu fees ci sa war a mhm. ku ko topp jëm fan xanaa du ak moroom a ko waral ku topp sëñ Tuubaa foo jëm ndax fa yàlla la jëm loo seey ca loola rek doon loola daa seey ci suñu borom a tax ñu koy wax yàlla jàmm mhm. waaye moom teel naa tontu moom sëñ Tuubaa moo bindal boppam lasta bi waalidin wa lasta bi walad yaa rabba kulla waalidin wa maa walad nee na yàlla lasta bi mhm. wa lasta muy doon doomi kenn yaa rabba kulla waalidin wa maa walad képp koo dégg ñu naan ko bàyyi nga mbaa ñu naan ko walad doom nga yàlla mooy sa borom kon sëriñ bi waxul nan ko jiñ mooy yàlla waxul ni moom mooy yàlla waaye lu waay jëf ba nduróog loola fi mu toll ni professeur bi est-ce que professeur la tudd Ablaay lay tudd mbaa mu tudd Maxtaar waaye liggéey mbee tax ñu koy wax professeur mm-hmm. kii fajaate ndax moom bi mu juddoo doon tufli ci noppam ni ko docteur dafa dem bay fajaate moo waral ñu koy wax docteur loo seey ca moom doon loola xanaa leer na ab safara lu mu tàng-tàng bu sóoboo ci ndox ma nga noonu mhm. li kulli shay'in sababun mbir mu nekk dafa am jeexintal mhm. fi mu toll nii bi lu mu wow kongo ba sedd buy buñ ko fi tegoon ab diir mu delluwaat ci ndox mhm. lan moo tax bu du faatoo ñu delluwaat lu ci suuf pourquoi bu ñu xoolee suñu yaram bi duñ ci gis suuf moo ne xalqakum min turab kullukum min aadama mhm. wa aadama min turab ñun ñëpp ci aadama lañ jóge te adama ci suuf la jóge mhm. lan moo tax bu ñu làmbee duñ fekk ci suñu yaram bi suuf mhm. dafa fu yàlla préparé ci ñun malaaka leer la kan ci yéen moom a gis malaaka su faatoo ci leeru yàlla lay delluwaat ginne ñoo ko bind ci safara bu faatoo ci safara lay delluwaat li tax nga xam ne yàlla bari pexe danaa la ci leeral dara iblis bi ko suñu borom di génne ci nguur gi daa jàpp ne ab malaayka la hmm? malaayka ko yar wa iz qulnaa lil malaayikati isjudu li aadama fa sajadu illaa iblisa abaa ki njëkk gàntul yàlla iblis la ndax la daa am fit jinn la mu ne illaa iblisan dara moo bañ